asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñoo ngi chaare mbokki taal bi ñuy teewlu yëpp di ñuy taataan yëpp di jiital ci nuyoo bi xalifatul am sëriñ Muntaxa Mbàkke di ko ñaanal suñ borom yàggal ko fi lool te mu ànd ak wér di nuyu itam sëriñ Cheikh Jëmb Fall xalifa maam Cheikh Fall di ko ñaanal moom itam mu yàgg fi lool te ànd ak wér tey nag ñu fas yéene dikk ak niñ ko baaxoo defee rek ci waxtaan yi nga xam ne ñoo dañ koo jagleel mag ñi mag ñi nga xam ne ñoo njëkkoon a ànd ak sëñ bi njëkkoon a nekk ak moom te wane ana lan mooy doxin bi te nga xam ne comme niñ koy waxee rek ginnaaw yoon wi kat lépp roy la rek ak romb ñu ñu fa yéene jël suñu yite yëpp def ci di xool anam ñoom lan lañ daan doxe ngir fexe roy jikko yooyu ak doxin woowa tey roy tey xool itam ana mooy lépp li nga xam ne ñoom daanuñ ko jëf ngir du ngir di bañ a roy loola ak waa mbaa di ko romb mbaa di ko wat nga xam ne naka noonu tam tey ñu fas yéene waxtaane kenn ci ñoom di kenn ku jàmbaare lool di Serigne Hamsatou Diakhaté mi nga xam ne maanaam Sëñ Tuubaa da koo fonkoon lool te li waral waxtaani rek mooy ni ko sëñ Baye Diakhaté daan fàttali rek naan sëriñ bi de ak mboolem mi nekkoon ak ñëpp ci moom asal ñu maasu kenn ñoo gën ku nekk ñoom te tey itam ba tey itam daan na wax naan waxal ci Serigne Touba lu yéemu lu sedd xol te koo dégg ci gaayam ne kooku amul morom te ñun ñëpp xam nañ ni kat ñoom fañ nekk daa sori lool te euh, ni ko sëñ Muntaxa di waxee rek maanaam lépp li nga xam ne daan nañ ko liggéey mooy pas-pas gi ñu daan liggéey ak li ñu am yëpp maanaam matériel bi ñu daan liggéey lenn jóge fi waaw lenn seen seen seeni payoor képp nañu yóbbaale waaye matériel bi lépp ngi fi matériel boobu nag ngir ñi ràññee ko loolu képp moo waral waxtaan yi bu ko defee amaana buñ ci góorgóorloo ñu ko sëñ Muntaxa di ñaanee rek sëriñ bi danañu xëcc ñodduñu ba ñoom ñooñee njëkkoon a ànd ak moom ñu tàbbi ci ñoom ànd ak ñoom sëriñ bi jéem ñu fa nga xam ne jëmee na leen ko sëriñ am sotti nag di koo xam ne sëñ Tuubaa da koo fonkoon lool lool lool lool te buñ duggee ci waxtaan bi lu ci bari ci seenu diggante dana firnde lool ndax maanaam moom ci niñ ko waxee woon bañ doon waxtaane soxna Mariama Jaxate mbokk yi ñëpp la ndax baayam kat mooy Serigne Mourou Assa Jaxate mais xam ne maanaam ñëpp xam nañ ko te mu doonoon jàmbaar lool lool lool lool te doonoon taalibi ku tedd ki waajuram bu jigéen tuddoon soxna Jeng Libaas mi nga xam ne moom it maanaam euh, daa ràññiku woon lool ci ci ci xam-xam ak ci maanaam euh, ak jaamu yàlla gu seen ñooñu nag di Serigne Serigne Modou Serigne Modou Asta maanaam moom daa doonoon wóllëre Serigne Dame Abdourahmane lool sax ndax daanaka ku ci mel ni euh, Serigne Masata euh, Binta doon Jaxate mi baayam moo jàngaloon Serigne Dame Abdourahmane Lo kon rek loolu day firndeel ni ñoom ñoom moom ay jëmm yu baax nañ te ñu yàgg nañ ci li nga xam ne maanaam mooy lislaam te naka noonu tamit suñu am satu jaxate mi ngi gane àdduna ci atum 1883 1883 nag bu buñ ko déggee ñun ñëpp danañ xam ni mooy at mi nga xam ne Sëñ Tuubaa ci la woote woon yoonu murit te sax li taxoon Serigne Ndaam Abdourahmane Lo ba Serigne Touba di woote maanaam nekkul woon ca peggu sëñ bi bokk na ci li tax mooy daa chaari woon jëmm jooju noonu di Serigne Modou Asta Jaxate mi bàyyi Serigne Amsatu fële ca Meewlu Jaxate nga xam ne maanaam euh, Serigne Amsatu fa la gënee àdduna Euh, suñu am satu nag kon ci 1883 googu noonu ci ajjuma ci suba ci la gane àdduna te buñ fàttalikoo Sëñ Tuubaa maanaam daa woote woon euh, yoon bi ci ab guddi ajjuma bañ xëyee ci guddi ajjuma ga bañ xëyee euh, ci laylatu xadr ci la waxoon ni kat suñ boroom da ko da ko da ko digal muy yar taalibe yi ci yitte te bañ a ak ñoom ci njàngale kese naka noonu nag ba Serigne Ndam Abdourahmane Lo dikkee ci ku tedd ki di ko euh, wax ni kat euh, ci jëmm jëm siyaar ji woon daam gan muy Serigne moom ba mu gënee àdduna Sëñ ci la waxoon ni kon de kooku mooy taaw yoon wi nga xam ne kon nañ xam ne Sëñ ci boppam moo woowee Serigne Amsatu taaw yoon wi. waaw ndax euh, laata boobu sax sëriñ Mor Assa Jaxate jotul dikk ci sëñ bi ngir jébalu si waaye ci ginnaaw gi ci la ko sëñ daam waxoon ni kat maanaam kañ waxtaanee woon Euh, ne buñ gisee màndarga yi jëmm joo xam ne maanaam li nga xam ne mooy ak sëriñ daamate ci moom ku ci nekk ci ñun ne ku ko gis naka wax moroomam ci naka noonu ci la sëñ daam daal di waxoon sëñ Modou Asta ne ko kiñ daan wërkat gis na ndax ci taarix rek euh, sëriñ daam Abdourahmane Lo ak sëriñ Asta ak euh, benn jëmm ju ñu naan sëriñ Balla Baraay ñoom dañoo doonoon ay xarit lool léegi ñu ni woon ku ci nekk ci ñun ñi bu gisee màndarga koo xam ne maanaam euh, ab sang la bu mat sang bi mu war a doon te mën a wommate naka wax ñeneen ñi ci naka noonu nag sëñ daam moo mës a gis moo njëkk a gis ku tedd ki daal di koy wax sëriñ moo Asta sëriñ Modou Asta daal di dikk jébalu si naka noonu ba sëriñ Modou Asta di dikk di jébalu si ci sëriñ bi ci la ko sëriñ bi laajoon ne ko ana sa tuut tànk googu noonu nga amoon ak euh, doom yi euh, libaas ja ndax libaas mooy mooy wayjuru soxna soxna jëng libaas mi wayjuru suñu am satu ci la ko sëñ Modou Assa doon wax naan ko moom de léegi de dëgër na sax te daanaka mokkal na alxuraan ba ci toppaat la toll waaw ci la ko sëñ bi newoon kat mu indil ko sëñ Amsatu buy ñëwaat nga xam ne kon sëñ bi ci boppam moo moo moo moo laaj lu sëñ Amsatu sëñ bi ci boppam moo ko laaj lu ci naka noonu tam ba sëñ Modou Asta di dikkaat di siyaar si waat gi ci beneen siyaar gi ci la indaale waat sëriñ ci la indaale sëriñ Amsatu ndax boobu sax di fàttali ne sëriñ Amsatu tuddul woon sëriñ Amsatu sëriñ Masata la tuddoon sëriñ Masata mi nga xam ne mooy wayjur sëñ Modou Assa dañ ko tuddee woon waaye nag ba mu ko waxee ana nu mu tudd euh, sëriñ Modou Assa ne ko Masata mu ne ko Masata du tur neel Amsatu waaw neel Amsatu waaw ci naka noonu tamit ci la ne ko woon mu bàyyi ko fi mu bàyyi ko ci ci ci sëñ bi euh, sëñ Modou Assa ci taalibeem ne ko danaa ko fi bàyyi te képp koo xam ne sax laaj nga ko ci sa ci sama njaboot maanaam danaa la ko jox waaw ne dénk naa la njaboot gi yëpp sax far. te loolu xëy na euh, duñ ci dugg ngir muy guddal waxtaan wi waaye dina firndeel ni li waral maanaam njabootu sëriñ Modou Asta gi yëpp maanaam sëriñ bi euh, yor soxna yi te euh, ñi nga xam ne ay góor yàlla nañu woon tamit sëriñ bi moo leen moo leen moo leen yar daanaka ndax boo tàmbalee ci sëriñ Amsatu mi nga xam ne moom lañuy waxtaane mi taaw ba ci sëriñ Mbàkke Jaxate mi nga xam ne moo daan wat sëñ bi di ko di ko di ko di nekk ci wetam fële ca njaareem mi caat maanaam ñoom ñëpp ñi jaati digg bi yëpp maanaam sëriñ bi ci boppam maanaam moo leen yar te maanaam moo leen moo leen moo moo moo moo yoroon soxna ndax kat sëriñ bi yor na ñeenti yoroon na ñeenti euh, leeri euh, sëriñ Modou Asta mooy ku ci ku ci mel ni soxna Faat Jaxate mi nga xam ne maanaam moom mooy woyu sëriñ Saalihu wala soxna Mariama Jaxate mi nga xam ne moom mooy woyjuru sëriñ Abdou Lahad ak sëriñ Soñebu wala soxna Aysatu Jaxate mi nga xam ne mooy woyjuru sëriñ Abdou Baaxi ak euh, soxna Jeng Jaxate ñooñu ñëpp sëriñ Modou Assam mooy seen bàyyi te kat sëriñ bi yoroon na leen yoroon dencoon na te naka noonu tam ku ci mel ni sëriñ Abdourahmane Jaxate mi nga xam ne sëriñ bi euh, sëriñ Modou Assam da koo fayoon sëriñ Dame Abdourahmane ci wan di ko wan ko tedd ki maanaam ñooñu ñëpp ak maanaam sëriñ euh, Balla Jaxate sëriñ Bakke Jaxate mi ñu tuddoon sànq ñoom ñëpp kat jotoon nañoo jaar ci peggu sëñ bi. waaw nga xam ne muy loolu nga xam ne kon muy ak jagle gu rëy rëy goo xam ne sëriñ Modou Assam sëriñ Modou Assam am na ko ci diggante ku tedd ki ndax kat ba sëriñ eh, maam Thierno di di di ba sëriñ maam Thierno di wër eh, loolu noonu côté di ko waxoon ko ne ko ñoo xam ne suñ borom kat daa def seen juróom-ñaari maam yépp kenn mësu cee mooy suñu borom te ñoom ñëpp daal di mokkal alxuraan ngir mu wëral ko ko ci ci biir dëkk bi ngir sëñ bi denc leen sëñ maam Thierno kat ci la demee woon meew lu jaxate kooku noonu ba jëlee fa ñeent ñooñu noonu ñu jot a wax muy loo xam ne kon jagle gu réy la. te ci sëñ Modou Assa moon ko te kat sëñ am sa am satu mii ñuy waxtaane mooy magu ñooñu ñëpp sëriñ bi dencoon muy kon ak tawféex goo xam ne kenn xamul fu mu toll kon naka noonu kon ci la ko bi daa di eh, laajee sëriñ Modou Assa sëriñ Modou Assa daal di ko bàyyi ci wetu sëñ bi sëriñ am satu kon daal di des ak ku te ba muy digg ci ku tedd ki moom ak tawféexam mooy moom jotoon naa mokkal alxuraan ba maanaam comme ni ko sëriñ bi sëriñ Mour Assa waxee woon kon ci bin ci toppaat la tolloon ndax moom ko jotoon naa sax euh, jàng lu téere gu mel ni Alaxdari yu jotoon na koo jàng ci baayam googu ba mu nekkee tamit ci sëriñ bi sëriñ bi jàngal na ko téere gu mel ni risaala sëriñ bi jàngaloon na ko laata mu ko yebal fële euh, ci cumbuleen ci sëriñ cumbuleen moom ak yeneen taalibe ñi nekk fa di bind alxuraan nga xam ne kon moom ci seen cumbuleen bind la fa neewee muy kon day firndeel ak ak waajam muy sëñ bi da ko waajal laata sax moo yegsi waaw kon ba mu nekkee tamit ci sëñ ci mu leen di fa di fa di fa bind ginnaaw gi tamit sëriñ bi yebal na ko ci sëriñ maam Thierno euh, Birahim Faty mi mi mi mi rakam ba keroog sëñ bi di dikkaat ci ci tukki bi sëñ bi di di jigaat ci tukki bi nekk googu nag mu nekkoon nag ci sëriñ maam Thierno bokk na ci li tax maanaam euh, mu amoon kóllëre lool lool lool lool lool lool ak sëñ maam Thierno waaw ba ni ñu ko xamee sax dencoon na sax ku ci mel ni soxna um, Awa Balla Mbacke mi nga xam ne moom leeru sëriñ maam Thierno la woon waaw te soxna Awa Balla moom di fàttali ni kat sëriñ am sot amoon naag moom soxna amoon naag moom ku ci mel ni soxna Seyni bu jaxate ak soxna Abi jaxate soxna Seyni bu jaxate moom sëriñ soxna moo ko denc ba moom sëñ Cheikh Say mii di xalifa euh, sëriñ soxna bu yàlla na fi loolu tax nag bi soxna Abi moom sëriñ Abdul Ahad Mbacke moo ko moo ko dencoon. naka noonu comme suñ son bu doonoon suñ am suñ am sotti doonoon ku jege woon ku tedd lool ba bokkoon sax ci ñi nga xam ne ñoo yoroon daare kaamil ba sëriñ bu nekkee fële ca ca ca ca gànnaar waaw ndax ca gànnaar googu sëriñ bi boole woon na ko ak ku ñuy wax euh, sëriñ Mouhamed Lamine euh, Gaye Jamooy waaw muy ku ku gëmoon yàlla lool te seetloon lool ndax euh, moom suñ Mouhamed Lamine Diop Gaye Jamooy moom tamit moo doon jàngal tamit ku ci mel ni sëriñ Mbaye Jaxate mi nga xam ne ñun ñëpp xam nañ ko nga xam ne kon ñoom sëriñ bi sëriñ Mour sëriñ Mouhamad Lamine leen dénkoon bu leen yi toppaatal xam-xam ak ak eh, dinañ jàngal alxuraan ak yooyu yëpp maanaam moom moo leen ko daan defal waaw te naka noon sëñ Mour Gën Jee mooy mooy boo boo buñ teewloo ci mm, wala falu sëñ Mbay gi muy wax ci mag moom la naan sëñ sëñ Mbay naan sëñ Mour Gën Jee mooy itam. bu ca wax lu dul ngor ak diine ak saytug njabootam ci ak loxoom nga xam ne kon da nga gis ni moom diine moom da koo fonkoon lool lool lool lool ba tax sëriñ bi jébbaloon ko ndawam yi nga xam ne daa amoon ci ñoom yaakaar lool lool lool lool sax kon naka noonu sëriñ Amsatu ba mu nekkee gànnaar kon bokkoon coon ci eh, ñi ñi yoroon daari kaamil gi ndax moom sax moo ko jiite woon ci ginnaaw gi daal di fa wuutu ku tuddoon sëriñ Moor Kuna Mbàkke waaw moom nga xam ne moo ko jiite woon laata ci ginnaaw gi nag ci la ko suñu am sudu jiite euh, foofa ca gànnaar sarsaara jiite waat ko tamit fële ca fële ca ceen jolof waaw suñu sotti tamit nekkoon kon ak bindkat bu rëy boo xam ne lu ci bari ci mbindum sëñ bi da ko daan sottiwaat ndax am na sax ñu naan euh, maanaam lépp loo xam ne mbindum ku tedd ki maanaam xaside yi nga xam ne dañ koy gis ci sëñ ci ci ci ci jamono ji yëpp am na ku ci mel ni euh, ñenn ci ci historiens yi dañuy wax nii maanaam euh, lépp lépp li min loolu noonu suñu am sori moo ko sottiwaat ndax sëñ bi maanaam mbindum boppam maanaam minum boppam moom daka daan jël jëlaat ko xooj ko daal di koy naan léegi minum sëriñ am sa gi nag moom moo tasaaroo am na ñoo xam ne lool loolu loolu loolu la ñuy wax nga xam ne bu ko defee leneen saa yi bu ko daan bindloo euh, lenn li mu ne ko lii kat warta génn lii kat nañ ko bind daal di yem fii lii sax mu ni ko maanaam euh, benn wàll gi laa lay jox li ci des bul ko xool mbaa ak yu ci mel noonu lépp lépp mu ko daan def ci peggu sëñ bi. ndax sax euh, euh, nee nañ sax xasida gu mel ni muqaddimatul am daax waaw nga xam ne ñu ñëpp xam nañ ko daanaka sëñ bi dañu woon du génn waaye sëñ am solo ci mbaaxam moom kat moo ni woon sëñ bi kat téere gi kat bu génnoon dana jariñ taalibe yi lool. ba sëriñ bi ne ko kat déet warul génn ba nee nañ wax nañ ko ñoom ñaar ñetti yoon ci mujj gi ci la ko sëriñ bi ne ko kat bu dee dana génn de faw rek maanaam nga def ci ak jaayante te jaayante ki mooy lan mooy maanaam danga koy jàng ba mokkal ko daal di koy bindaat euh, daal di mu koy indi fii nii waaw léegi boo defee loolu nag téere ji dana mën a génn. nga xam ne kon loolu tax euh, waa kër sëriñ Amsatu daal di fonk xasida googu loolu di muqaddimaatu am ndax ndax maanaam euh, tawféex googu noonu euh, ñi am ko tey jii sëriñ Amsatu daal ñu koy dimbalee ndax kat sëñ bi ci loolu sax ba mu noppee loolu ci la ko sëñ bu sant daal di ne ko kat sa xasidaa ngoog waaw nga xam ne kon day firndeel ni muqaddimaatu am daa moom lépp loo xam ne nit jàng na ko ci rek maanaam sëñ Amsatu moom faaw rek dana ci am ak wàllam. naka noonu tam moom moo sotti téere gu mel ni fulkul machun nga xam ne maanaam euh, sëriñ bi euh, dañu ko woon demoon ma gànjool nga sotti ma fi téere bi te fulkul machun ni ñëpp xam nañ ni téere gu gu gu yaatu la waaw nga xam ne euh, am na ñu naan maanaam boo xoolee téere gi rek am na lu toll ci 606 page waaw 606 pages te maanaam euh, am na 316 maanaam euh, xasida yoo xam ne nee nañ ci biir waaw te lépp boo ko boolee 11 347 euh, bayit lay daal di doon kon muy téere gu yaatoo yaat yoo xam ne Serigne Amsatou maanaam ba mu koy sotti amoon na tawat yu yu yu metti sax yu wax yoo xam ne daloon na ko ci waaw nga xam ne ci la ñàkkee woon benn ci ci benn benn baaraamam ba mu diggaate ci côté di ko nettali maanaam tawat gi ko ci fekkoon ak ak baaraam googu noonu daloon ko ci. Eh, daa baaraam googu noonu mu ñàkkoon ko ci sëñ bi doon na ko wax naan ko lii maanaam nga daj maanaam fepp la fepp la ci man mi nga xam ne maa bind téere bi ba koy bind xëy na kon day firndeel tamit diisaa yu fóotul maçon ak maanaam tool tool tooluwaay gam am waaw ndax kat eh, di fàtte nii rek eh, maanaam jàng gi koy jàng njaareem nga xam ne loolu sëriñ Basiiru Mbàkke mi nga xam ne leeru ko sëñ bi la ak sëñ mu Mouhamadou Lamine Diop Dagana ñoo ko tàmbali woon te ba nii tamit sëriñ Muntaxa tamit di ko wéyal ak rakam di Serigne Fallou Bachir di ñaanal ñu yàgg fi loolu temps ak wér kon loolu lépp day firndeel ni maanaam kon Serigne bi maanaam daa fonkoon Serigne lool lool ba di ko defloo ay mbir yoo xam ne moom rek maanaam moo ko daan def bu njëkk waaw moom rek moo ko daan def di ko maanaam ci njaareem rek daanaka lu lépp lu jëm ci taxawu ku fi jóge ak yu mel noonu yëpp nga xam ne sëñ bi la def te bu amul jot mu mu mu ko daan jox Serigne Amsatou la ko jox ba nekkoon noonu dëkkam boobu nga xam ne di ko fonk lool sax. di Touba manam bamuy bamuy bamuy digle manam ñu demal ko fa Serigne Amsatu la wolu won ak yenen talibé wa wa mom mom la wolu won moy mu defee liggéey bu am solo naka non sax talibé yi nga xam ne àndoon nañu ak mu mënees na ci lim manam ku ci melni euh Serigne Massamba Mbacke mi mi mi rek sëñ bi ak ku ci melni Serigne Fadilou ak Serigne Mourou Moussa Serigne Cheikh Diop Dagana Serigne mo roxay buso Serigne Omar Gueye Serigne Mor Soxna Diop ak Soxna Makhtar Penda Dieng maanaam ñii nañ ñëw àndoon ak sëñ Amsatu daal di dem Touba ngir dundalaat dëkk boobu nga xam ne sëñ Touba da ko fonk lool lool lool lool lool te sëñ Amsatu tamit ci maanaam mën a jëfe ndigalam ba mu demee ci bërëb boobu noonu daanika eh, la ko fa daan jëlee képp mooy maanaam bu waree dikk daal di siyaar si sëñ bi eh, mbaa mbaa mbaa lu ni mel rek waaye bu dul loolu moom daawul jug foofu bërëb benn yoon. ngir kat maanaam ndigal li nga xam ne sëñ Tuubaa joxoon na ko muy toog fa waaw naka noonu tamit mook ñii ni ñi lim dañ faa def liggéey bu am am solo waaw ci dundalaat dëkk bi maanaam dundalaat maanaam daaray kaamil nga fa nekk maanaam lépp loo xam ne nee na rek mën nañ ni maanaam jamono jii nii suñu am maanaam bokk na ak ak ak ñooñu noonu ñu sëñ bi yabaloon fa ci ñi ñi ñi ñi dundalaat dëkk bi tey mu mel ni nga xam ne sëñ Tuubaa euh, bëggoon na ko dëkk bi mel ba te mu te leer loon ko ci xaside gii di Madabul Fawzeyni te naka noonu tamit sëriñ Amsatu eh, Sëriñ Tuubaa lii firnde tamit fonk gi mu ko fonk dénkoon na ko ñooñi di ay leeram nga xam ne ku ci mel ni sëriñ Abdou Lahad Mbacké ak eh, sëriñ Sohayb te buñ fàttalikoo lam ko waxoon kat dañu ko jox ji ma lay ma lay jox jëmm yi de nekkul aada maanaam du danga di seeni nijaay moo tax ma lay koy jox waaye kat dari dama def ci yow loo xam ne dama bëgg nga sotti ko ci ñoom waaw te mooy maanaam li loolu mu daan wax naan defar taxoo la laaj te moo tax mu daan jël ñi nga xam ne defar na leen di leen dénk ñi nga xam ne bëgg nañu sotti loola ci ñoom te loolu kat loolu boo demoo tamit ci ci ci wolofal googu noonu eh, sëriñ sëriñ mm, sëriñ Bay Jaxate defaloon ko sëriñ Abdoulaye da nga ko gisaat bu wér ndax danaan ko loo gis ci am sotu moom yi cib yar ak jëf yiw xamal ni moo ko ca def eh, gi wax ku nekk la biir waaw kon xam ne day firndewaat ni lépp loo xam ne nee na ci sëriñ sëriñ sëriñ sëriñ sëriñ Amsatu rek nañ xam ne maanaam Sëriñ Tuubaa moo moo moo ko ci def waaw nga xam ne kon Sëriñ Tuubaa da koo da koo da koo da koo da koo defal tawféex bu yaatoo yaatu sax waaw Sëriñ Tuubaa da koo defal tawféex bu yaatoo yaatoo yaatu joo xam ne maanaam ci ci ci nettal yu bari des di dégg maanaam fonk gi ko Sëriñ Tuubaa fonkoon ak yaakaar gi amoon ci moom waaw ndax euh, am na sax lu ci mel ni euh, bis Sëriñ Tuubaa daal ni ko Amsatu kat suñ borom nee na maanaam tey lépp loo bëgg àdduna ak àllaaxira mu defal la waaw lépp loo bëgg àdduna ak mu defal la euh, naka noonu tamit bëgg am solo di tontu dani ko woon kat euh, suñu borom kat na na na na na yokk maanaam maanaam sama tawféex maanaam ci yow te gën maa doolee dimbali waaw te sëñ bi kat dani ko àdduna ak àllaaxira ci naka noonu tamit ci la ko sëñ bi nekkoon kat a am soto xamoon naa la de waaye tey ji de bett nga ma ndax kat lii nga wax kat dara lu jëm ci àdduna nekku ci loolu de yéemaat na ma lool te nawaat naa la ci loolu itam waaye nag du tax maanaam li nga war a am ci àdduna lenn nga ñàkk cee jox maanaam du la xañ dara ci li nga war am ci àdduna ji xam ne kon loolu tamit day firndeel maanaam ak gëmam Sëñ Tuubaa ak wóolu gi mu ko wóoluwoon ba Sëñ Tuubaa tamit defaloon ko tew tawfeex ci boppam waaw nga xam ne loolu tamit daa daa daa mat a bàyyi xel lool lool lool lool te lépp xëy na day dikkaat tamit ci waajal gi ko sëñ bi waajal rek comme noonu ñu ko waxee ndax euh, moom ak euh, jëmm jooj noonu di euh, Serigne Baye Jaxate kat nga xam ne ay mbokk nañu woon ñu wér-wér waaw ndax kat xëy na day day guddal waxtaan waaye ñëpp ñi nga xam ne sant nañ jaxate rek nañ xam ne ñoo bokk benn maam te kat ñoo bokk fi ñu jóge te Sëñ Tuubaa daan wax ni lu mel nii naan leen yéen saa ñaari gone yi yii nii muy am Amsadu ak Sëñ Bay ne yaakaar naa leen lool waaw yaakaar naa leen lool lool waaw daan leen ko wax. ba ko ci mel ni sëñ Baye Jaxate daan na ko wax naan ko mbaa yaakaar ci ñun du tas sëñ bi naan ko déedéet du tas te loolu ku dem ci téere gu mel ni garabu Tuubaa te sëñ Alxaaji Mbàkke bind ko da ko ci fekk te naka noonu tamit sëñ bi euh, mus mus mus naa mus na koo wax ni euh, ñoom ñaar ba tey itam ne leen yéen ñaar ñii de bëgg bëgg naa ngeen ngeen ngeen gën a góorgóorlu waaw bëgg naa ngeen di ngeen gën a góorgóorlu ndax da ngeen di saa ñaari gone yoo xam ne maanaam yàlla daa def sama yaakaar ci yéen waaw ma bëgg nag ngeen góor góorlu bu baax ba bis penc ba bu yonente bi salallahu taala alayhi wa sallam ne ramul xeer bi yéen ñaan ñi ku jug ci yéen du aajo man mi sëñ Tuubaa may jug kon loolu tamit day day day fi day day day maanaam ak tolluwaay gu yéeme nga xam ne kon sëñ Tuubaa fonkoon na leen teg fa teg teg teg teg leen fa maanaam fu kawe kawe kawe kawe kawe kawe waaw te naka noonu tamit ci jaayanteeg sëriñ Amsatu ak ak njàmbaareem taxoon na sax maanaam euh, am na bis Euh, sëñ Tuubaa nekk ci ci ci barab nekk ci lu mel ab néeg daal di teg Sëñ Amsatu ci buntu xayma bi de am am bi ab diir mu toog mu wóolu Sëñ Amsatu ne ko dikkal Sëñ Amsatu daa dikk daal di fekk ca biir néeg ba am naar bu xees lool am daraja lool ba noppi amul sikkim waaw amul sikkim sëñ bi daan ne ko euh, nuyul kii sëñ bi loolu rek la wax daan ne ko nuyul kii waaw après sëñ bi am sot daal di koy nuyu daal di génnaat mu toogaat diib diir sëñ bi daal di koy wooluwaat mu daal di dikkaat ci biir mu dikkaat fekk fa sëriñ bi rek te fekk fa naar bi nga xam ne fekkoon nag fa te bunt bi kat benn bunt mu amoon ci xayma gi te maanaam nit romb ko fi waaw léegi nag sëriñ bi ne ko euh, kii nga fi gisoon ndax xam nga kan la mu ne ko déedéet xawma kan la Mbàkke mu ne ko kii toogoon fi de sëriñ euh, kii toogoon fi de euh, amsatu la amsatu maanaam muy muy saxaaba mu ne ko li woo li taxoon ma wóolu Seydina Amsatu mii mooy damaa bëggoon bépp daraja boo xam ne am na ko cib xare ah, ak maanaam lu mu mënti toll maanaam mu jébbal la ko te loolu kat moom nangul na ko waaw. nga xam ne kon loolu mu mu nekkoon li yéeme nga xam ne kon lépp loo xam ne daraja la te se te Seydina Amsa maanaam daal di koy làmboo rek maanaam jébbalaat na ko Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa daal di koy jébbalaat Sëriñ Amsatu Jaxate mi nga xam ne euh, bokkoon ci mag ñi. te Sëñ nag la mu ko ci tegal tamit dañu ko nag kon du ñàkk nattu yi nga xam ne gaaroon na Seydina Hamza daal lay gaar waaw te loolu kat li benn ci firnde gi rek mooy baaramam boobu noonu mu ñàkkoon mu doon bind fulkul mashun tax kat euh, Seydina Hamza moom ñeenti baaraam la woon ndax daa woon benn baaraam boo xam ne daa daa daa demoon cib xare waaw nga xam ne kon day firndeel tamit kon seeni mbir nduroo woon na lool lool lool lool lool waaw nduroo lool na lool te na ko noonu tamit ci fonk gi ko sëñ Tuubaa fonkoon tax na maanaam sëñ ba fi ku tedd ki jógee eh, am na bis maanaam eh, kii maanaam am na am eh, sëriñ Fàddilu daal daal ñëw ci moom sëriñ Fàddilu sëriñ Moodu Musaa ak sëriñ Mbàkke Jaxate mi rakkam ak sëriñ Mbay Siise ndax nettali googu sax sëñ Mbay Siise moo ko nettali sëriñ Mbay Mbay Giraan daal koy nettaliwaat nga xam ne mi mi ngi wax naa leen ndax ci yéen ñii sëñ Fadil doon wax ak sëñ Modou Moussa nan leen ndax amoo leen soxla ci seen baay ngir ma waxal ngir ngir ma waxal leen ko ndax seen baaykat maanaam ba mu euh, dama daan def heure bu ma ko bëggee gis gis ko waaye léegi kat yittewootuma lool ndax maag moom ñoo dëkk waaw nga xam ne sëñ Abdou Latif comme daan wax naan maanaam sëñ Tuubaa ba mu fiy jugee ci saahir moom nee na boobu la ko gis sëñ Tuubaa maanaam gën a yomb waaw nga xam ne kon moog sëñ Tuubaa nee na ñoom dañoo dañ dañoo dañoo dañoo dëkkoon. nga xam ni kon loolu muy muy muy muy pas-pas bu yéeme te te firndeel tamit maanaam maanaam lépp rek ak ak ak pas-pas bu ñu amoon Sëñ Tuubaa moo tax Sëñ Tuubaa defal ko may googu nga xam ne xëy na néew na ñoo xam ne Sëñ Tuubaa defal na leen ko waaw néew na néew na néew na néew na néew néew na Sëñ Tuubaa defal leen ko waaw te comme ni ñu waxee woon ci waxtaan bi doon def ci soxna Mariama Jaxate rek soxna Mariama Jaxate maanaam Sëñ Tuubaa na ko wóol ba ñëw mun ko Mariama képp ku sant Jaxate képp ku bokk ci askanu Jaxate lépp loo xam ne am na ko rek na la ko gërëmee yàgg am satu waaw na ko gërëmee am satu te loolu loolu loolu tamit lu yéeme la ndax ku ci nekk ñun xam na ni askanu njaxate moom ñu baax kesee ci nekk waaw baax kesee ci nekk te waroon toppaat maanaam ñi ci bokk euh, te bokkal sañu am satu maanaam du duñ fi jug waaw duñ fi jug ñooñu ñëpp ñooñu ñëpp sëñ sëñ bi li mu wax soxna mooy maanaam na la ko gërëmee yow ak sëñ am satu ndax maanaam lu fi waay am rek maanaam ci ci yéen ñii maanaam la jaar waaw ci yéen ñii la taw fekk man jaar suñu am kon doonoon koo xam ne kon daa amoon jaayante lool te jege woon Sëñ Tuubaa lool lool lool waaw jege woon Sëñ Tuubaa lool ni ko rakkam yooyu noonu sëñ bi dencoon jege wi ndax kat daanaka buñ xoolee euh, ku ci mel ni sëñ Mbàkke Jaxate li waraloon maanaam sëñ bi euh, jëloon ko ci sëñ Modou Assane ni mu ko defee woon sëñ Amsatu maanaam euh, ba sëñ bi sëñ sëñ bi yabalee sëñ Amsatu Tuubaa ci la jël sëñ Mbàkke Jaxate moom mu dend ak moom foofu ca njaareem xam ne sëñ Mbàkke moo daan def lu mel ni wat sëñ bi daan ko yoral sa talaam ak loolu it moom moo ko daan def te moom tout tànk la woon lool sax waaw ndax ba mu yegg ci sëñ bi euh, nee nañ maanaam fukki at ak juróomam matul woon waaw fukki at ak juróomam matul woon te loolu tamit day day doon ak jagle gu yéeme goo xam ne maanaam ñoom euh, seenu kër maanaam amoon nañ ko seen ci ci ci ci digganteeg ci digganteeg seen seen digganteeg sëñ bi waaw mu doon kon kon lu yéeme naka noonu tamit suñu am satu maanaam moom it euh, bay maanaam waaru boppam waaw waaru boppam. ba euh, maanaam euh, am ak kóllëre ak mag ñëpp mag ñëpp fonkoon ko lool lool lool lool waaw mag ñëpp fonkoon ko lool waaw ba ba dencoon na sax leer ku tedd ki ndax suñ Mour Moussa euh, denkoon na ku ci mel ni soxna musi waaw te mag ñu bari sax tuddee nañ ko doom ndax ku ci mel ni sax maam Cheikh Fall rek tuddee na ko sëriñ Amsatou Fall waaw ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne maanaam xëy na buñ ko doon lim maanaam maanaam du du du du duñ jeex ba di am Amsatu Mbàkke mii nga xam ne yaa yàlla na fi yàgg loolu tànn ak di leeru suñ soñew nga xam ne ñun ñëpp ni suñ Amsatu jàmbaar ja la ko la ko bàyyam tudde waaw euh, moomoon kóllëre loolu tamit ak sëñ Mour Moussa waaw ba fi ku tedd jóge ndax euh, sëñ Mour Moussa moom ñoom ñaar dañoo dañoo fonkonte woon lool sax waaw ndax euh, comme ni ko mag ñëpp defee rek ba fi sëñ bi jógee dañoo yeesalaat seenu jaayante Euh, ci seen seenu diggante ak moom fas yéene koo jàppale ci liggéey bi te yombale ko ko seen kiim kàttan donte ay bàyyi nañ ci woon day bàyyi nañu woon ci moom waaye dañ ko ko yombal lool lool lool lool lool sax waaw lii firnde gi rek maanaam bu ci ku ci mel ni maanaam Cheikh Abdou Lahad loolu mu waxoon ni maanaam ba fi ba fi sëñ Amsatu jógee mu ne kat faaw rek faaw rek ñi xaar Serigne Cheikh Gaynde Fatma yegg si ndax kat euh, kóllëre gi bàyyam amoon ak sëñ Amsatu waaw nga xam ne kon loolu nga xam ne looloo tax am na sax ñeen ci mag ñi dañ naan suñu am sot looloo tax ñu yàq koo denc waaw ndax ndax ndax mooy xaal googu noonu ñu doon xaar suñu Cheikh Gaynde Fatma te Cheikh Abdoulaye waxoon ni kat dee su ko denc fii ak suñu Cheikh yegsi waaw nga xam ne te ba mu yegsee ci la ko euh, sëñ Abdou Khadir daal di jullee après ñu jaar koy jébal boromam waaw te naka noonu tamit ci fulla gi mu amoon rek. daan daan na wax naan maanaam jugee gu fi ndax am na jamono ba mu tawatee maam bañ naan ko ba ñëpp ñu bari foogoon dafay jugee dañ kat man kat demaguma léegi ndax kat am na loo xam ne sëñ bi dani mu woon danaa ko seere te loolu kat yegg seegul waaw loolu kat yegg seegul moo tax am na sax ñu naan loolu man mu waroon seere mooy toog xilaafa gu jar baatam googu noonu di sëriñ Abdoulahat waroon toog xilaafa ndax kat sëriñ Abdoulahat xam nañ ni 1968 la la la la la la toog ci xilaafa yi te 1969 euh, ci la fi nijaayam googu noonu di Serigne Amsatou daal di jóge waaw ci weeru tamxarit nga xam ne kon loolu rek day firndeel ni Serigne Amsatou kon maanaam jàmbaar la woon loolu di ko Sëñ Tuubaa fonkoon di ko Sëñ Tuubaa daan jox cër goo xam ne maanaam moom rek moo ko daan matale sëñ bi da ko daan dénk ngir moom mu koy matale euh, te naka noonu tamit sëñ bi maanaam am na njabootam ci lu bari yoo xam ne sëñ bi joxoon na ko ngir mu yar am na njabootam boo xam ne tamit seriñ bi joxoon na ko ngir mu denc ko waaw ndax moo xam ñi nga xam ne ci ci ci ginnaaw bi la leen seen Mourou Moussa jox waaw te ba fi jógee itam 1969 euh, maanaam ñi ko fi wuutu nii la nii la toppee 1969 ba 2002 leeram guñ naan sëriñ Abdoulahi Jaxate euh, moo ko wuutu 2002 euh, ba 2005 sëriñ Moussa Jaxate daaj ciy toog naka noonu après ginnaaw bi 2005 ak ba 2009. Serigne Modou Jaxate daa ciy topp ba fi mu toll nii mun Muntaxa Jaxate maanaam moo ko fi moo ko fi teewal ñu koy ñaanal mu yàgg fi lool lool lool lool lool lool lool lool rek temps de waaw kon boobu moom amaana sax xëy na moom joo xam ne mëneesu mëneesu koo dajal waaw mëneesu koo dajal waaye nag xam ne kat képp koo xam ne tey maanaam mi ngi jàng xaside yi ku tedd ki rek mbaa nettali nga xam ne xëy na des na ko fekk euh, ci téere ak sëñ sëñ Basiiru gi rek nañ xam ne lu ci baree bari suñu am soto am liggéey bu amoon solo bu ci def am na liggéey bu amoon solo bu ci def te loolu kon maanaam xëy na day firndeel rek kenn amul payam rek waaw des ko ñaanal ku tedd ki nga xam ne moo taxoon mu daan liggéey te jaayante moom ak jaayante bu bu kaay boobu ki gën koo doolee téyel boppam rek te gën ñu koo doolee fayal waaw foofu mu nekk ak téere yooyu noonu mu daan sotti téere yooyu tamit di ko maanaam bëyit bu nekk mbaa xuruf gi nekk di ko yóbbul tawféex yu yaatoo yaata fële mu nekk te mu doon tawféex yoo ne day sax dàkk dàkk dàkk dàkk ba yaakaar googu noonu ku tedd ki amoon ci moom ba naan ëllëgeekat bu gën a bëgg naa bu ma jógee boo boo jógee yaag seen bay jaxate maanaam man mii kat du yaay may jug loolu noonu kat yàlla na ko matale sëkk sëkk sëkk sëkk sëkk sëkk waaw di tubaat bu baax nag tey wax nit lépp loo xam ne jub na ci kàddu yi rek maanaam ñu xam ni ndimbalu sëñ bi rek li ci dëng itam ñu xam ni daanaka day teew fee ko sëñ Tuubaa ak teew fee ko sëñ Amsatu moom yi doon jéem a topp lenn ci ci ci ci ci jaar jaaram ak lenn ci ci ak dundam asalaam wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yaa bil furqaani rabbi al muhin